asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci kàddu yu gàtt rek ci paral bi ñu jox te ma ànd samay kilifa samay mag muy Cheikh Ibrahima Seck bu sëñ Alpha Seck mi toog ak suñu mag Modou Anta ak Cheikh Makhtar Deyman ak ñi ci des ñëpp ak Mouhamed Niang bu buun yore daara Ahmad Saxilu bu buun ak ñin àndal ak ñeneen ñi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëñ Maxtaar xam ne nii sëñ maxtar Maxtaar naatlo bi nga xam ne nii mooy jiite daaray kokki di jiital ci nuyoo bi nag ñu mag suñu kilifa docteur Thierno Ka ak docteur Babacar Samb ak docteur Yuri sàll doon am lu mu doon sàkku te yàlla suturaal ci kokki ba mu am ko fa te loolu muy mu loolu loolu la ñuy loolu la ñuy bëggee loolu la ñuy sant yàlla euh, mu jógaat ba liggéey ba def liggéey bu rëy bii mu mu def muy liggéey bu am solo euh, te loolu ma ji ci ñaax yaakaar na am na suñu doom yu bari yu fi nekk yu jóge kokk yoo xam ne tey ñu ngi département arab yaakaar na lu mu gàtt gàtt war nañoo jóge vingt personnes ci salle bi mu war a nekk nag. ab li war a nekk ab dërs ci yéen boo xam ne war ngeen cee jànge xalaat ëllëg ne yéen tamit war ngeen a taxaw war ngeen yoon waa ngi nii yaakaar naa ne sëñ Sall wax na ko yoonu xam-xam képp koo xam ne kii dala koo yombalal wax la jëfewul moo la ko xañ képp koo xam ne kii dala koo neexalal na la soo koy wut day ànd ak bànneex kooku moo la ko xañ yaakaar naa dégg professeur sàll li mu wax ci docteur Jim ak fi mu jaar li ma ci gën a neex nag mooy man yàlla def na dafa baax rek waaye bokk na ci ñi jaar ci sama loxo waaye ba mu cay jaar moo tax bi li ma gën a jàpp ci waxi sàll ji mooy na man bi ma ko yoree dama ne ko woon Jim yaa ngi nii de waaye yow de la nga xam ne liñ soxla ci yow tey liñ soxla ci yow ëllëg mooy nga am ñaari licence ba am doctorat dama ne ko woon na nga am doc nanga am licence su arabe na nga na nga yow docteur fra euh, licence su arabe la ñu séntu ci yow ak licence su boo am ci français yaakaar naa ji ngi muy dégg yàlla def moo tax loolu bi mu wax ak jafe-jafeñ yooyu yii sàll wax yëpp ak li mu jaar loolu dafa mel ne loola kon déggoon na ko ba ni mu amee doctorat muy lu am solo muy tamit loo xam ne bañ koy wax ndax ab jàngalekat su fekkee da ngaa yor ab élève nga yor ko ñaari at ñetti at war nga am loo war a mën a atte ci moom ci mustaqbalam te it yooyu it war na la tamit nga def ko tew ji nga orienté ko ba mu xam ne am na lu koy nekk te am na am na capacité mën a àgg fu sori te loolu jii tasji lay doon ci moom dafa mel na loolu nga xam ne moom lañ ko doon wax tamit loolu dégg na ko loolu lañ koy sant loolu mënu bégloo euh, euh, li ñuy wax nag ci wàllu euh, ci kum bindu téere bi dellowaat njëkk la waaye tamit jàngale histoire la histoire nag dafa am lu muy jariñ ndax dañ koy war nettali nit ñi xam ko ndax bépp société boo xam ne bii amul fu mu teg ay tànkam fu dëgër maanaam société boobu du mën a dem te fu muy tànk teg ay tànkam bu am ay repères yoo xam ne nii repères yu dëgër lay doon loolu bala ko nit am day delluwaat démb jàngaat démb dund ñu bari ñoo xam ne nii am na lu ñu réussir seen dund andil ko àddina sépp su ko defee loola suñ ko dee fàttali su ko defee loolu mu nekk ab jàngat boo xam ne danañ ci mën a jànge xam ne lii kat aw yoon la boo xam ne bii ku ci jaar da mën a dem loolu rek lañuy wax ci téere bi leneen li ci topp euh, li nga xam ne nii moom la am a Saxiir gënoon a bëgg dala daan wax ne soo soo ñëwee danaan la soo jàngee ba nëpp day tàggoo danaan la ah yaakaar naa Mouhamed Niang buun me mat na ci seede soo jàngee ba noppi naa la ah dafa mel na kat yow da nga fee andi woon ab làmp boo xam ne amul pétrole amul ak mees boo lam mees a xew amul mees ñu defal la ci pétrole defal la ci mees fompal la làmp ba mu set taalal la ko lan moo ci def léegi mun ne ko nga leeral mu ne loolu nag su ko defee mu jàngal la aaya ja falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diin wa linsuru qawmahum iza raju ilayhim la'allahum yaxsaruun pour wax na la kat demal nga tasaare ji ci say mbokk nga tasaare ci àdduna si loolu moo doon bëgg-bëggam loolu moo doon bëgg-bëggam jimmi nag ca loola ca la jaar te loola ca la jaar mu nekk loo xam ne nii tamit ñun ñëpp war nañ koo bàyyi xel surtout suñ doom yi ci toll te li nga xam ne nii moom la professeur Sall doon wax euh, euh, professeur Samb doon ko wax dañoo jort ne loolu day ay étape yoo xam ne nii maanaa langue arabe yàgg na cee jaar ci réew mi yaakaar naa suñ mag jooju ñu fi doon tudd léegi oustaz Ahmed Lo mi sos Manaarul Huda ak yeneen jàngalekat yi nga xam ne ni ñoo jëkkoon a jàng arab yaakaar na ak àggoon nañ ci waaye nag dañoo xeex xeex bu rëy xeex boobu nag du fi jóg biñ leen sengoor jëkkee jël ci li ma dégg ñoom ñi du ko netti ndax boobu ay tuut tànk lañ ñun yaakaar naa ne saabu bu salaire masaan jot weer ma pour nga jël sa salaire fokk directeur yi école bi dalay bital certificat de service fait nga doog mën a dem trésor ñu doog laa mën a fay waaye ñu nekk sa loolu buñ ak it nag di dox di xeex ci suuf lañu war a xeex booba avancement bi yaakaar naa ne docteur na kaw moo ma gën a xam lool avancement balaa masaan am fokk président mooy def décret arab maanaam jàngalekat bi doo ko mën a avancé ñu nekk ci loolu nekk ba yàgg ñu jël leen ñu nangoon jël ñu jël récusé woon ak sangam léegi am nañ dañ leen jël comme ñu am kàpp comme ñu am CAP nangam ak nangam waaye ñoo nekk buñ ba lépp jeex ba Ibader ñëw def ci liggéey boo xam yal na ko yal ko yàlla yërëm def ci liggéey bu mucc ayib kon tamit yéen xale yi ci toll na ngeen xam ne maanaam xeex bi jeexagul. xeex bi jeexagul te yaakaar naa sëñ sàll mii wax na ko léegi yaakaar naa ne professeur Samb tamit wax na ko te ñoom it ñu ngi def effort yin man ngir jéem comme université ay feneen ak feneen li fi am yëpp loolu dem ba jeex te loolu yaakaar naa dana jeex waaye nag yéen ñu ci toll tamit xam ngeen ne seen bàyyi ak seen mag yi am nañ jéego yu ndox yéen tamit bu leen taxaw fas yéen a dox fas yéen leen a dox yeneen jéego yi ngir ëllëg xam ne mbir mi dana jeex. man loolu laay ñaax suñu doom yi toll di leen gën cee soññ ci xam ne li am solo mooy jàng li am solo mooy jàng li am solo mooy jàng nit ki na jàng soo tollee ci jàng jàngal liggéey nanga nangam nanga sa yoon nekku ci jàngal yow da ngaa war a xam daal xamal état duma jël sa yoon nekku ci jàngal rek yow jàngal xam na yàlla du la bàyyi mukk te du la bàyyi mukk te du la bàyyi mukk yow waaye yow jàngal xam-xam bi lañ soxla jàngal liñ yaakaar na ëllëg tamit yéen a koy soppi te muy jëm ci wàllu réew mi ci anam yépp lu mu mënti doon ci ci yorin woo xam ne yor wu sell lay doon wu tegu ci aw yoon lay doon wu wu set wecc lay doon delloowaat maanaam réew mi gëdd gi nga xam ne kii moom la population bi am. dind boobu buumum noteel nga xam ne ba tey tubaab bi ba tey dëjul tey di di colon di loolu ci yéen lañ yaakaar ne ci yoon leen jaar yaakaar ne ëllëg ak si biir maanaa jéng yooyu yéen a koy yéen a koy daj kon na ngeen yokk ko góor na ngeen yokk ko taxaw xam leen na yoon wu mett la waaye daal yoon wi daal moom la leen ci mën a àggale fa ngeen jëm mooy jàng rek suñ waxee jàng nag jàngal lépp bul gàttañu lu ci lenn bari na ci seen mag yoo xam ne nii effort yi ñu def ba dugg département arabe ba man langue tàng dañoo dañoo xaw a dee lu nekk lañ def. Mm-hmm. lu nekk lañu def. Mm-hmm. jib mii bi mu nekk kooku boobu français bi développé gul noonu. Mm-hmm. booba suñ su masaan jàng ba pare te niveau français bi deewul noonu day gàddu ay kayam dem ci kuñ naan monsieur Thiam Pape Thiam dem na retraite léegi dem ca mu di ko mu di ko waxal di ko waxal ba mu def ba ba mu daataan jiw kooku mu am certificat français kooku mooy wan na gis nga bu maanaam nit ku nekk xale bu nekk la la muy nar a nekk ëllëg rek bi muy ndaw day da ciy feeñ. kon loolu man lii rek laay wax nañu yokk góorgóorlu. sëñ Maxtaar it ma ngi leen di sant jim bu baax di sant mbokk yi sa mbokk yi Saalum yi ñëw yëpp xam ne lii dañuy kontaan loo ndax sëñ ma saxir kët bokk na ci tukki yi mu doon def ci wàllu xam-xam di ko gëstu di ca dem. yaakaar naa tudd nga ko njaayeen kàdd ca Saalum kon loola maanaa dafa mel ne lii nga xam moom la kokki def ci jim day mel ne ak pay la rek goo xam ne gii guñ guñ guñ guñ faywaat waa Saalum ca la nga xam ne moom la sëñ ma saxir jàngi woon Saalum ba mu ñëwee ci njaayeen kàdd ak la mu fa jële woon te du fàtte yoonam woowu mukk loolu ba tey am ñu jóge Saalum ñëw di jàng si waat kon da fayaat bor rek la kon nag jim yoon wi nag mu ngi doog a tàmbali nii nga xam ne nii noonu la la Samb ñoom professeur Samb ñoom ñii ak euh, suñu kilifa docteur Thierno Kami encadré ba nga àgg fii nga àgg ah yow it xam ne nag am nga ay rak am nga ay doom am nga ay jarbaat yu nekk sa suuf yoo xam ne te yow it na nga fexe ba liggéey bii nga xam ne moom lañ def ci yow nga def bu raw booba nag ci sa rakk yi ak sa jarbaat yi ak sa doom yi xam ne nii ñoo nekk suuf ñu ngi baalu ak ñëpp. di ñaan yàlla yàlla na yàlla suñu koor yàlla na yàlla dolli ci réew mi jàmm yàlla na yàlla dëgëral xam-xam te fi nga xam ne ni fi lañ fi lañ yaakaar àgg ëllëg lépp xale yi taxawee ko ëllëg tëb loola yàlla na ko yàlla sottal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu njabootu suñu maam Matar Kala Dramé mu nuyu ñëpp wala ma jël sama nuyoo teg ko ci loxol sama mag Matar Dramé. ci turu ñu maam Jabel Ndumbe Dramé mu nuyu ma ñëpp kon daal euh, yaakaar naa ne niñ ko waxee man sama kàddu moom du ci bari ndax téere bi liñ ci waroon a wax wax nañ ko euh, li ñu waroon wax ci auteur bi wax nañ ko mel na ne sax am na rek euh, ku ñu xaw a fàtte ci mbooloo mi inspecteur Ousmane Ba nekk jiite enseignement arabe ci ministère de l'éducation nationale Euh, dañ ko fàtte tudd yaakaar naa ne ci la bokk waa tamit euh, euh, docteur Safiatou Diack IRD mu ngi fi xam naa du ma mën a tudd ñu fi nekk ñëpp waaye damay ñaan mbooloo mi nag ñu may ma lenn mooy ñi nga xam ne dañ maa jàngal te teew fi tey ma tudd leen ko nekk ba kenn par kenn loolu ma maa ko ñaan mbooloo mi ak lu mu gàtt gàtt mm. xam ngeen ca kokki Euh, sëñ Fallou mii moo ma dalal arab euh, moo ma dalal arab am ci loxoom certificat arabe ak brevet arabe waaye du ma fàttaliku toujours rek du ma mos a fàtte saa yum man boobu moom nekk franco arabe bu may dajee rek daf may joxoñ ne moo jiim doctorat de <laughs> doctorat de alors boobu tax man pour man xalaatuma sax ne affaire jàng ba àgg pour man bu amee licence daal yaakaar naa dina baax donc li ci jàngatee ndekkee nga am benn enseignant muy lay muy lay xiir di dugal ci volonté ndeke dina tax léeg-léeg nit ki xaw a je dox ay jéego kon loolu duma ko mos a fàtte te maa ko koy euh, maa ngi ko koy euh, gërëmee baax a baax a baax waaye bala maa ñëw ci loxoy sëñ Fallou ak ci kok yi dafa jaar ci euh, sama waajur moom dafa gaaw faatu sama beneen waajur Abdoulaye Dramé ma jaar ci moom bàyyi ko ci moom dem ci sama mag ci même tur bi Abdoulaye Dramé jaar kooki yor daara ñooro ma ànd ak moom ñu dem kër ma jabel ñu fay jàng mu yor ma ñu bàyyi ko fa dellu dellu ñooro moom moo ma ne mu ngi toog mu ngi toog ci jataay bi ñëw na bàyyi ko ñooro moom moo ma ne jim Euh, ndax euh, danga war a jéem a dem kokki moom idée dem kokki ci moom la bàyyi ko mu ne boo ci d'accordee man maa la yóbbu te noonu la ko doxalee moo ma yóbbu ba kokki c'était un lundi le 9 mai 1982 ñu yóbbu kokki ca sax fekk sëriñ bi ndeysaan mu ngi toog ci buntu daara ji ñu toog waxtaan ñu accueillir ma mu fanaan xëy bi donc euh, sëñ daara Ablaye boobu aussi maa ngi koy gërëm bu baax a baax baax ndax li ma orienté ma bàyyee koo kokki ñëw franco arabe fekk fii ñiy toog nii sama oustaz Makki Jiba mu ngi ni toog sëñ daara Camara bii moo doon surveillant bi école bi oustaz Dame Ndiaye léegi la dem dafa am benn contrainte Mansour Dem xam naa dafa am ngont eh, yaakaar naa ci ñeneen ci waa ñi ma yoroon ci daara ca ca ca waa ah mathématicien Njaay Mat Njaay Mat moo da moo jàngal mat xam nga ko bàyyi ko daara kokki <laughs> ñoo franco arabe nga war a continuer def mathématique moo tax il faut ma ci sëriñ eh, gërëm encore sama oustaz eh, Pape Pape Thiam moo may benn base ci bu nga xam ne ci la defee euh, certificat français pour mën a dem euh, ñëw préparé franco arab bi ci français bi donc ma ñëw fekk fi mathématicien bi aussi góorlu du góor góorgóorlu ba yaa dimbali ma ma bàyyi fa am bourse daal di dem Égypte kon ñii bëggoon naa dina tudd ñi ci des nag ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk sa tur sa sant mbokk yeeg njaboot yeeg am di jàmm yeeg xar yeeg ñëpp ku ñu fàtte tamit fàtte rek la waaye bu ñu ko suñoon ku nekk ñu tudd la waa cité enseignant bu ma dëkk ñëw nañ imaam Assane ñëw na ñi ma bokk tableau bi nag tata plateau bi Mamadou Yuri Sall wax na ko yàgg nañ suñu oustaz sama oustaz la Fadel xam xam wax naa ko sëñ Babacar Sam mii tamit professeur dinaa ko wax ndax bi ma bàyyee ko Égypte ñëw en quatre-vingt-quinze octobre fekk na booba temps am na ñoo xam ne toog nañ fukki at amuñu benn demande buy bàyyee ko monde pour war a def euh, continuer fii ci département d'arabe boobu moo nekkoon chef département d'arabe mu accueillir ma di ma teete ma def ñaari at di daw pour am inscription au département d'arabe waaye à chaque fois rek mu may encourager biñ ma inscrire dama defal defal licence encore dafa ma gën a euh, euh, ñaax ne ma def ko yàlla def ma def licence bi yàlla dimbali ma moom mu encadré ma sama maîtrise ni mu ko waxee kon yaakaar naa ne jàppale na ma taxaw na ma su ma ñëwee ci professeur Thierno Ka euh, li ñu boole bëri na waaye dama jël rek lien scientifique bi bi ma paree sama man samay euh, gëstu ci kokki maa ngi commencé ni ko docteur waxe way waxee en 1996 laa commandé gëstu ci daaray kokki ba fi ma toll nii te bu neexee yàlla damay continuer di gëstu daaray kokki ak ci mbooleem daaray Sénégal parce que gis naa ne euh, gisuma daal mission bu gën a bu gën a am solo ci Sénégal fexe ba suñu mag yu baax ñi fi nekkoon nga wane seen liggéey man gisuma man loolu laa gëm ndax ni leen war a xamee ba léegi xamuñu leen dëgg dëgg dëgg kon professeur Thierno Ka bi ma ñibbisee keer ànd ak sama nijaay Alaaji Omar Dramé yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ma nañ dem seeti Thierno Ka ndax booba dem naa ñi ngi si amaguma liggéey amaguma fu may jàngale nañ dem comme moom mu ci ci terrain bi bon dina la mën a orienté ci lañ àndee dem mu jox ma ay conseils yu baax yàlla def moo war a def sama thèse doctorat nag moom muy encadré ma dem ci moom mu ne ma ci loo bëgg a bind ma ne ko ci daaray kokk yi laa bëgg a def sama thèse mu ne ma mu ne ma gëstu bi nga def ci kokki fekk boobu nag def naa master en sciences de l'éducation ci ci kokki sama premier mémoire bi ma def école normale en 96 97 ci kokki la ko def 2009 ma def sama master en sciences de l'éducation ci Koki léegi professeur Thierno Ka ne ma li nga bind ci Koki nii boo bindee boo ci bëgg a def thèse doctorat daanaka doo def lu bëri dangay ngay rek coupé collé rek jëlal beneen daara beneen école nga étudier ko bu paree nga xam ne da ngay nekk ci ñaari école yoo xam ne sur le plan scientifique ku bëgg a bind. scientifiquement parlant faw mu tudd la comme source mu ne ma tànnal ñetti écoles yi lekkool da Jaamal l'école euh, Sëñ Abdou Kandji Gaañ Daaru Gànjaay ak l'école Passy euh, euh, Maam Ngataan Passy Maam Ngataan Passy Passy Maam Ngataan alors ma tànn xool ci bureau ci building finalement ma ne ah naa jël lekkool la jaamal mu ne ma jël jaamal mu ne ma wootee naa jaamal laajte ne am kenn ko def thèse ci jaamal ma daal jël jaamal xamoon naa ne du yomb waaye tamit ci ndimbalu yàlla bi may def thèse ci jaamal awma benn jafe-jafe ndax ñi ma war a jox information ci jaamal ñii samay maam lañ ñii samay nijaay leen ñii samay papa lañ donc bi ma demee jaamal sëñ señ Ahmad sa tudd mu fàtte mu ne ma su fekkoo ne keneen mooy def thèse de doctorat ci jàmmal kon dama ci màndu waaye yow moom dina la jàppale moo tax awma benn jafe-jafe ci may def gëstu jàmmal ci ma def sa thèse donc ci lekkool de jàmmal pour wax rek li docteur Thiano Ka waxoon ne boo bit yi lay léegi da nekk taxaw jaamal taxaw kokki yàlla def na kokki ji moom léegi édité nañ ko jaamal mu ngi fi ci wàllu université bi waaye édité guñ ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla maye mooy ba ñu édité ko donc kon yaakaar naa ne su ma sante sama ñi nga xam ne ci dama jaar seen loxo ñu formé def ci man liñ ma def liñ def ci man mu nekk benn bor boo xam ne man dama gis ne euh, daara yi bi si fa am ma kokki bi si fa xaasa dama am benn bor bu ma leen war a fay waaw boobu boobu nag xëy na amuma xaalis bu may financé waaye mën naa fexe ba nga xam ne Sénégal ak àddina bi ci wàllu xam-xam dinañ xam daaray kokki te loolu aussi façon fay la façon fay la loolu moo tax moo ma gën a xiir te man yàlla dafa def ma dund ak suñu ama soxirloo dina koy xale yi ma ne leen ñun suñu chance moo di ne xëy na kook ki léegi day wax dëgg yàlla ci lay gën di neex ci wàllu dund ci wàllu nekkin ci wàllu ndox waaye ñun suñu chance mooy te dañu dund ak moom mu daan wax ñuy dégg muy jëf ñuy gis waaw loolu moom yàlla bay nañu ko te loolu koo xam ne référence la modèle la yàlla may la nga dund moom moom juróomi at a genn wàll e, boo góorgóorloo woon nga man am loo jëlee ci moom te nag li ngay mën a wax ci kokki moom ngay mën a wax ca daara ca ca ciroñ ca bokki jawe démb lay waxtaan ak docteur Ahmad Saïd Ba mu ne ma ci bokki jawe depuis 1801 lañ ko créé ba fii ñu toll jàngu masu dagg man dem naa bokki jawe gis naa la fa nekk ciloñ bokki jawi añam siwal gàngeel caareen euh, Madina njaaj bi bëkki dem la fa bàyyi ko nga dem gaaya boo xol wàcc si dem daana la bundu sututa nga dem ma dem euh, dide gasama jende jaylaani dem ba ni Israël wàcc si dem biir Saloum nga xam ne Saloum daanaka fool laal daara la daaram bu njëkk Saloum li lay wan moo di ne booy dox guddi foo seen mu leer rek xamal ne daara la booba temps courant bariwul nga wàcc ci Bawol nga wàcc ci ci Kajoor donc wax l'école de Pire nga xam ne wax nañ ko professeur Thierno Ka ci la def thèse am en 1982 bu ñuy xam Pire tey dëgg dëgg dëgg yàlla mu ko jaarlee ci Thierno Ka ndax baala moom am na beneen gëstukat bu defoon benn thèse wax ne l'école de Pire raaf na dara desatu ci Thierno Ka def de teesam ci l'école de Pire génnee li Pire def kon yaakaar naa ne euh, lii ma def tey lu tuuti la xëy na yéene ji mu ëpp pour ma def lu gën a rëy lii su ma ko mënee ci kokki ak ci daara yi mel ni kokki ci Sénégal suñu ama sa xeloo danaan wax kokki ak daara yi mel ni kokki dafa ubbeekoo woon in fi taax kon nag bis bi tey ñu ma bokk ak euh, génne daaraay kokki bokki xarit yi am di jàmm yi ñu ñu lim yëpp dégg ngeen leen yaakaar naa ne maa ngi leen sant di leen gërëm di gërëm euh, sama mbokk dinaa ko tudd docteur Wayel Moussa Wayel yàgg nañ mu jiit association bi ma communication bi ñu àndandoo liggéey ba fii ñu toll ñu ngi liggéey kon daal euh, xam leen ne daal euh, maa ngi gàttal fii di gërëm ñëpp di ñaan yàlla xam ne sama ustaas li nga wax dégg naa ko incha allah dina ci bàyyi xel waaw fexe ba nga xam ne xale yi ñu féetee suuf lu ñu leen mën a dimbale ci encadrement incha allahu taala duñ ci mos a te bu ñu déggalee tamit dinañ orienté ci ay écoles yu mel nii ñu étudier ko ndax man comme damay déplacé wu gis naa école yoo xam ne mérité nañ def thèse de doctorat yu bëri ci Sénégal te ba léegi dafa am amagul kon donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant. di ñaan yàlla daal yàlla fay yiw ku fi ñëw yàlla ñëw beeg ñibbi bi yépp yàlla defal ko ay tànk yiw di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf wax ji jaratul guddal <coughs> mais dañuy nuyu borom kër gi nga xam ne bii moo ñu dalal di directeur général bu Armata di docteur Diallo macha allah ñu fekkee waxam bi dégg nañ ni waxam bi leere te it ñu ngi koy remercier. ndax bu ma juumul ci diiru at yu mujj yi la commencé di éditer liggéeyu arabisant yi booba daf ko doon def en français mais léegi si nii rek dégg ngeen mu wax ne même ñi nga xam ne dañu bind ci arab bu ñu bindee bu ñu ñëwee bu ñu ko examiner dañ koy génne encore ci arab te lool teesu docteur Ousmane Dia joxe na ci firnde di sargalaat itam beneen initiative bu xam ne bu bees la mooy bi professeur Babacar Samb wax xam nañ ne même ci biir salle bi ñu ne am na ñu bari ñu waajoon pour def seen thèse au de l'université de Dakar ni université Cheikh Anta Diop mooy seen handicap moo doon ne duñu ko mën a bind lu dul ci français léegi dégg ngeen professeur Babacar Samb wax na leen léegi ne ku yóbbu itam sa thèse projet de thèse en arabe commission bi examiner ko ba d'accord ci dangay bind ci arabe loolu ñaari initiative la yu xam ne yii jar nañu sargal bi ko lal nag mooy création baccalauréat bu iti arabe et islamique bi nga xam ne état bi reconnaître na ko mu mën ubbi ñu bëree bëree bari benn ñu continuer seenu njàng université wala ñu régler waat encore seen situation administrative wala situation pédagogique bu mu ci mën a doon comme ñi ci saal bi lépp nag ñi ciy mag surtout mën naa wax ne quatre vingt cent ci ñoom xàmme naa leen xale yi nag xàmme ma leen xëy na ñoom ñu xàmme ma moo tax duma mën a tudd seeni tur waaye mboolem ku xam ne kii suñu doom Abdourahman Sakho tudd na la may tudd naa ko ci xol ak ci xel ñu mu fàtte woon ñu dabatal ko ñoom itam tudd nañ leen ñu ngi leen tuddaat li ma gën a neex itam présentation bi docteur jàlloo moo ko ubbi ci wolofam ndax loolu daay tax ñu bare bare bari ñii arab bi lañu gën a dégg ñii français bi lañu xaw a gën a dégg ñii wolof bi daanaka dong lañu dégg boo ko defee nag ci lu xam ne ñun ñëpp dañ koy dégg loolu dafay yaatal liggéey bi ñu ngi jotal suñu nuyoo ci sëriñ Muxtaar Naar Lo ci njabootam gi présenté ko fi ci turu sëriñ Fàllu Lo mu jotalal ñu ko ndaxte kat daaraay kokki xanaa léegi mais bu njëkkoon boo dindi woon saalum saalum ya nga xam ne dañuy gàddaay di dem kokki di jàngi danga ci génne lu bëree bëree bëri te sëriñ bi daan leen yaatalal lool lool lool bu ko defee jëm mi nga xam ne moo doon def dédicace ci téere bi jëm borom courage la li mu wax léegi dëgg la daf ma indil projet de thèse foofu it ñu jàllale sant ci initiative Babacar Samb ndax jamono yooyu mooy chef département arabe ci université Cheikh Anta faculté de lettres bi ñu njëkk a ubbi école doctorale études arabes islamique yàlla dogaloon na ne bu mooyee professeur Rawane Mbaye man maa manoon am garaat boobu man la ko yàlla joxoon professeur rawaan ay toll fu xam ne soreetul mu dem retraite te mu ngi yore woon côté troisième cycle bi doctorat école doctorale bi doon war a encadrer troisième cycle la ca desoon boobu sax la desoon ca doctorat troisième cycle bëreetul alaaji rawaan continuer ko man ñu dénk ma école doctorale bi pendant huit ans xam ne sama signature signature Babacar Samb ñoo doon dox danaa ci gërëm Babacar Samb bu baax buy étudiant bu xam ne man maa koy encadré danaa def sama signature tànk encadreur mais def sama signature également tànk responsable école doctorale bi mais ci li ma yëg xam ko masuma def benn signature moom mu war a sous-signer loolu mu def contraire ba te itam bu benn boor taxawoon rek bu boobaat dafay am gàllankoor kon lépp luñ ci doon def yàlla bind na ne ñoo ko bokkoon di def marocain yi mu doon wax itam dimbale nañ ñu bu baax fekkoon nañu nekk di encadré rek mais am na ñu mu jeg ñu xam ne pareeguñu woon ku mel ni doktoor Baye Ibrahima Mbaye man maa continuer encadré ak ñu bëree bëree bëri Fadil Fadil géey ñu ngi lay nuyu Alaaji Fadil Gueye mane ne ñu ngi lay nuyu sa site bi ñu ngi ciy jëriñu bu baax ma ne sa bi ñu ngi ciy jëriñu bu baax ndax lu lu xew lu ne danga ko dugal defe naa ne itam bu ma juumul ki nga xam ne moom mujj soutenir ci man mooy docteur Sandianko Socé am na ñaar ñu xam ne nag ba léegi ñu ngi des soutenir ak ñu heure ne nag ma wax leen te duma leen mas a encouragé ci ñu abandonné la ñu def bokk na ci ci encadrement yooyu yi ma ci gën a neex son excellence le ministre Abdoul Malal Diop demoon na bay taayi di bàyyi man maa ko ne waroo bàyyi comme waroo bàyyi nag il faut ñu seet ban solution la ñuy jël pour encadrer waat sama baat bi nag taxul mu mën a yëkkati ko moom kii bi moo doxu doon bon moom itam bi ñu ko encadre bi ñu ko laajee biir mu nangu defaat thèse de temps ci suñu encadrement loolu lépp nag ci ndimbalu yàlla la ak xéwalam ak nangoo dimbalanteeg ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci commission nationale commission nationale depuis sa création quatre vingt defe naa ne ñoom itam kuy wax ci enseignement arabe war nga wax li ñu ci def ndax lycée alaaji fàllilu mbàkke waxuma collège alaaji fàllilu mbàkke waxuma daarul muallimin mais lycée alaaji fàllilu mbàkke gannaaw yàlla mu ngi amee ci effort bu xam ne bii commission national moo ko dox bac bi itam commission nationale ak mboolem ñi ci doon liggéey ñoo ko dox ñu ci doon liggéey ñu bari ñu ngi fii ci saal bi ci ay hygiène hygiène yi ku mel ni Mëggey Njaay ku mel ni Baye Ibrahim ku mel ni même Babacar Samb mi toog eh, ñu bari lañu ñu bokk doon ci liggéey ba mu am ak docteur Mamadou njaay ak ñeneen ñu am xuma finalement moom ci ñu mujj ñëw la bu ko defee liggéey yooyu yëpp nag bu ñu ko amalee histoire moom moo koy tudd man mii itam nag sama carrière scientifique bu ma koy wax war naa wax ñaar ñu xam ne kenn ci ñoom dundatul nekkatul ci adduna bi muy Ahmed Eyane Thiam rahmatullahi alayhi dama jànge woon Kuwait ñëw am inscription Sorbonne bugg a def continuer Sorbonne ñu bugg ma forcé ci jamono jooja ne ma école normale rek ngay dem jàngale ji te man booba nekkut sama ambition gannaaw yàlla situation boobu Ahmed ci am ridwanullahi wa rahmatuhu alayhi moo ma ci dimbale ci ministère bu ñuy wax Ousmane Camara ndax Ousmane Camara demoon na ba jël sama dossier bi ci noo ne doon du dellu France même papier bi mu bindoon noo NON noir ci la bindaat wéy ci Eyane Thiam moo ma ko doxaloon maa ngi doon fàttale ko jamaano jooju lu ma waxoon daf ma ne képp koo gis mu yéeg ba àgg ca kaw ba muy yéeg am na ñu ko doon toñ man de wax dëgg yàlla sama ubbu teefu dira saatul olya yàlla mun ngi ko jaarale ci loxoom ak Ibader Thiam Ibader Thiam boobu mu ngi def thèse de doctorat demoon naa ba bàyyi ba ne damay bàyyi ñibbisi mu ne ma doo ñibbisi de ndax booba nguuru jamono jooja booba ci jamonoy Senghor la ñoo ma bëggoon forcé ne ma il faut ma ñibbisi ndax ñoom lañ ma doon tuddee ne jox nañ ma ko ci bourse jeex na te loolu ñaari at la te at bu ne lañ ma ca doon jox matul genn wàllu man la ma matut ceeru la ma doon war a ame fii Iba Der rahmatullahi moo ma dimbale ci situation boobu bon war nañu ko sant waaye am na ku ñuy wax Lopis Jean Lopis catholique la moo doon directeur de bourse moom itam fu ma mën a toll bu ñëwee rek encouragé ma ne ma lépp loo fayoon ci njàngum tubaab danaa la ko rembourser fay ma yëpp kon ñun dañu gis ne bon li ñu doon def ñun itam dañ waroon a delloon jukkal ñeneen yi suñuy rakk ak ñeneen yi suñuy doom bi ñuy jàngale école normale am na ñu xam ne sax ñoo ma war a mag mais ñu ngi leen doon jàngal ku mel ni oustaz Babou ku mel ni Moustapha wan mi fi boo bërki démb rahmatullahi alayhi ak ñeneen ak ñeneen bu ko defee sëñ Fàllu Loo mii am na lum la wax jim lu am solo ñun li ñu mënoon def nañu ko te itam man bu ngeen demee ci sama conclusion thèse yépp mboolem thèse bu ma bind wax naa ca ne thèse bii de ma bind li ci des ci daara yu ñu mën a bind ci mu boxoo ci daara jooja bu doon ci kokki la woon jamaano jooj pir jamaano jooj bindoon naa lu war bu mat juróom benn wala bu juróom ñetti école yu xam ne pire lañu commencé te warees na cee mën a bind encore thèse buy njaanjaay noonu la buy kokki bii jim doon ñu présenté it kokki bii itam jim war na ci jéem a diriger ay étudiants ñu bindaat ci thèse ndax teesu Muxtaar Numbe Jóob bëreegul si waxuma ne amul de waaye ji bëreegul si waaye teesu lii jim liggéey mu ngi ko gën a def ci jamaanooy Sëriñ Ahmed Saxiir Lo te nag bu leen fàtte ne kokki ci daara yi gën a jiitu ci la bokk yu yàgg man nag la ma waxoon ba léegi dama koy wax dama leen ne Pire du mooy daara ju njëkk ci Sénégal mais mooy daara yi ñu njëkk a organisé ci Sénégal ndax boo demee biir Saalum rek am na fa daara yu mag Pire te kenn bindut ci même biir njàmbur am na fa te kenn bindut fa jamaano yii côté Tambacounda yi ñoom jimin ak Souleymane Gaye seenoon naa ko ci saal bi ñu ngi découvrir ay centre yu bees yoo xam ne yii yëpp xale yi ñoo ci war a bind tees nag teel du ko du ko def bu ngeen seet woon jim bu fekkoon ne jaamal la doon présenté daanaka fu ma ko fi mas di yebal dem na fa ndaxte thèse du ne dangay fekk lu jóoree rek nga bind bu boobaa dootu du thèse dangay dem ci lu xam ne li xamuñu ko nga dem di laajte dégg bii rekk ñim la wax ne contact na leen ci ay personnalité ñii téléphonique ñii physiquement ak daara yi nga xam ne dem na seetu leen ni mu bëree képp ku bugg a def thèse nag loolu da nga koy bàyyi xel léegi nag daanaka xale yi sawaratuñu ci njàngu ndax numérique bi moo tax lu ñu bugg a seet rek dem ci ordinateur yi tàppe jis couper coller loolu nag du thèse bu valable thèse dëgg dëgg dëgg dëgg da nga def ay enquête sur le terrain da nga delluwaat ci manuscrit da nga delluwaat ci lépp xoolaat ko bu baax a baax a baax maa ngi bugg a jeexalee ne ñun arabisant yi itam ñun ñi mujj a ñëw maanaa war nañu ameen njukkal Amar Samb waaye itam war nañu ameen njukkal it alaaji rawaan mbay ndax alaaji rawaan mbay moom itam bu muy bind teesam l'islam au Sénégal boobu ñun ñii amaguñu licence Amar Samb ba muy bind teesam ñun ñii amaguñu baccalauréat bon ñoom ñooñu ñu ubbi bunt bi encadré si woon ci itam na lu tolloo ak lañu man lu tolloo ak seen gis-gis jamono boobu itam bi ñuy nangul Mauritanie yi ñuy bind thèse en dëgg-dëgg bu lit dëgg amoon war nañu nangul Sénégalais yi ñuy bind thèse en arabe ndax booba département anglais mu ngi bind thèse am ca département rek la ca lii itam département la mais comme bunt bi ubbeeku na ngeen gën da ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax bu ko defee ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, ci jamaanu yii ñu toll nii Harmattan génneel na ma benn téere daf noonu dañ koy dédicacé ci biir weeru koor wi mën a leen biir weeru koor wi manul ne d'abord man ak sama jëmmi bopp sama wér-gi-yaram taxul mu melee noonu ñaareel ba itam dama bugg ko boole ak sama yeneen i téere yu xam ne yi dañ koy dédicacé ndoor benn yoon loolu jamono bu ñëwee yéen ñi ñëw fi nekk ci salle bi yéer woo nañ leen te danañ jox dim daraame na ko mboolem ko yónne woon ko invitation yónne ñu ko invitation liggéey bi